non alors que nit ñu bëree bëri dañu faral di jaawale benn affaire mooy nit ku nga xam ne tey dafa baax ak nit ku nga xam ne tey dafa yambar xam nga tey jigéen ñi en tant que jigéen ah en tant que jigéen tey analyse yi peut-être di ngeen ci gis seen bopp parce que tamit euh, nañ bàyyi xel bu baax a baax kàddu gi ñuy wax parce que euh, bu ñu xoolee dañuy gis ne Mariétou maanaam baax gi dafa dem ba mujj nekk ak yambar quoi te xam nga ñu baree bari dañuy jàpp ne te jigéen bu baaxee rek mooy loolu mais baax wopp day xaw a nuru ak yambar te des fois jigéen bu melee noonu tey ay moroomam dañ koy faral di yàpp te en général bu ñu seetloo dañuy gis ne duñ faral di ko di leen di ko boole ci seeni activité maanaam jigéen tey bu yambaree genre yenn yambar yi ay moroomam duñ ko boole ci seeni activité non non parce que dañuy jàpp ne kii ni tey da leen di tardeel extra loolu moom moo tax tey Mariatu li ko dal nii dal ko le fait kër gi tey kenn respecté wu ko fi donte le moom mi ngi jéem a jël ay responsabilité am mi ngi jéem a wane que moom euh, nit la bu nga xam ni tey euh, dafa war a jël responsabilité ci biir kër gi extra noonu mais nag du nekk yomb non non jamais du nekk lu yomb parce que moom ak jikko bi mu yor ak jikko bi mu yor tey euh, dafa nekk jikko bu nga xam ne tey jigéen bu nga xam ne tey amee nga ko euh, lu baree baree baree bari daf lay raw quoi ndaxte tey ñàkk ànd ak jamono moom moo ko waral. dafa it nag bu fekkente ne woon tey ànd na ak jamono tey dinañ mën a adopté wu ak moom ndaxte boo xoolee li tax soxna gën kaa yàpp li tax soxna gën kaa yëpp moom mooy loolu parce que soxna tey gis na ne Mariétou dafa yembar tey plan bu muy tëral bu fekkente ne jaar na ci maar mu xaw a mu xaw a dëgër tey ci Mariétou lay dem jaar foofu parce que leer na ko ne tey bu demee ci Mariétou euh, Mariétou da koy jàppale ci plan boobu à cent pour cent te Mariétou nag loolu mën nañ ñëw moom moo ko yàqal moom moo tax tey ñum Fanta des fois dañ koy xaw a jox cër mais des fois dañ koy nanguwaat. le fait que le fait que nag euh, maanaam cër boobu nga xam ne tey ñoom Fanta nañ ko koy jox di ko nanguwaat di ko ko jox di ko nanguwaat di ko ko jox di ko nanguwaat cër boobu dafa nekk cër bu nga xam ne tey moom moo ko moomoon au début mais nag li muy faral di ànd ak euh, noon yi loolu moom moo tax te tey soxna soxna tey noon la ko ñoom ñoom ñoom euh, Fanta jàppee ndaxte tey moom lu yàqu ci kër gi mën na ñoom moom la. lu fi réer mën nañ moom la donte ne nag dina lay dina lay ah ba génn si loolu moom oh, mën na ne Euh, ku moom làmmiñam la quoi parce que li bëgg moom da koy def kenn du ko ko tere te tamit lépp lu mu dugg mën na see génn d'une manière d'une part dañuy jàpp ne kon moom moom na boppam ci côté boobu parce que jigéen moom ak lu man di xew ak lu mu man ne tey problème boo amee mën naa fexe ba euh, naa fexe ba régler problème boobu dañuy jàpp ne kon kii ni kat jigéen bu am xel mais nag naka lay utiliser xelam loolu moom moo nekk problème bi parce que tey xel mi da koy utiliser ci ni nga xam ne tey noonu la la ko neexee mais du ko utiliser ci ni nga xam ne rek noonu la neexee ñii di waa famille bi loolu mooy problème.